yéen kaay leen seetaan fi mu di kii ci mbokk la ki ko ana ñi bëgg sañse ana ñi gëm sañse ana ñi bëgg seen bopp civilisé set te fu génnee sañse ba rafet bëgg lu baax ku bëgg lu baax kaay fii VIP sañse di seen kër gi leen indil ay sañse yu rafet ay pantalon yu rafet nouvelle génération ak ay lokostu yu rafet yu góor ak yu jigéen muy góor di jigéen ku bëgg sañse bëgg lu baax ñëwal fii ci VIP sañse c'est Japs Blende Blende jàkkaarloo ak police bu Medina Fall gaawal gaaw woote ci numéro bii ma lay jox 78 168 92 49 78 168 VIP sañse daal moo nuy sagal.